Ama Balde yow yaa man Modou Lo yaa ko mën fuuf yaa ko ëpp yaa ko sut gën ko rëy ëpp ko ay gàllaaj gën koo bëri ay xarfa fuufa yàlla moo la wan boppam affaire yi du ay gàllaaj du ay sëriñ du ay xarfa fuufa gëm yàlla sunu borom la yàlla mooy maye ndam mooy maye victoire yaa ko mën waaye moo la daan ndeysaan kon nag di courage su beneen yonente yi nga wàññi sa gàllaaj yi yow mbër mu mën a bëre bu toll ni Modou nga ne danga koy mbot ndax yaakaar say gàllaaj ak li la maaman maaman yi wax dañuy lekk sa xaalis dong làmb ji da ngay entraîner jàng bëre mën bëre waaw boo ñëwee nga daan daan bi mu la daan dafa leer nañ wàcc ma daan naa la wóorul ki daan da ngay féete kaw te Modou moo féete kaw kon félicitation Modou Lo na la ndam li jik yàlla na la ndam li jik yàlla na la ndam li jik ci barki sëñ Babacar Si Maalik mi nga yaay moo ëpp doole moo gën a rëy moo gën a ngand moo ëpp ay gàllaaj moom léppam ci ay gàllaaj la ko teg moom la ñuy gis muy gàddu ay ay jaan léeg mu gàddu ay bar indi ko ci làmb ji affaire yi yàlla la du ay xarfa fuufa boo reyoon nag ci biir géew gi sax boo bëriwul entraînement loo amoo technique mais dañu lay daan vraiment Modou Lo nag. félicitation sa bëri bi neex na trop yàggaloo làmba ji te mbir mi gaaw na jeex ñëw nga dóor nga ko yëg nga ci kawam yaa ko mën félicitation Modou Lo gars yi na ko ñëpp ñaanal gars yi <laughs> Modou Lo yaa mën a bëre <laughs> Ama Balde bu ma menacé nag. gis ngeen gaa yi Ama Balde ni ko Modou Lo def toroxal na ko de da ko dóor ba yëg ci kawam di ko kurpañ di ko di ko jor ay sol-sol. ba bët bi neew yi noonu la oustaz Modou Fall def aadamoo barki Seexu Tidiane aadamoo jaratoon dara ci dëkk bi bàyyil combat bi jarul ngay commenter ci kombaa bi yaa ngi say lu nuy weng nii oustaz Modou Fall toroxal na la toroxal sa askan jaratoo dara dara dara dara mais gars yi Modou moo mën bëri barki Seexu Tidiane yow aadamoo say saaga sàppi na ñëpp Modou Fall moo la gën ci ndey moo la gën ci baay moo la gën ci askan. combat bee tax mënumaa commentaire ci sa diggante ak Modou Fall dinaa ci ñëw réew ngay jaay ak xamadi Modou Fall dëgg rek la la wax yow ngay saaga damay omelette damay sa copparetu ndey yow yooyu yooyu nit ñi sàppi na leen jéemal nga soppi